ne ci Sénégal ñii mën confection liste yi fa la coow nar amee parce que am na ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi bëgg a nekk député déjà ah, ma commencé ko modab modab modab modab da nga bokk ko def nga quota gis nañu ay tour mais gis ñu ci tour Cheikh Bara waaw non député waaw man loolu nag vraiment nit ñi sonal nañ ma ci loo. am ah, madame de tout ñu gis seen quota ay kaat dañuy paas man <laughs> bi la jom xadi si la. <laughs> mais du hmm. loolu. waaw waaw waaw man sax man sax li ma xaw a lii mooy damaa def benn déclaration bari ki démb. wax ne Modap dañ leen war a dolli ay député ñu nit ñi foog ne sama bopp laay waxal man waxuma ak sama bopp man affaire député yi jëloon. mais ñëpp kaat yéen mag mag magu parce que tam kaat la ñu am de. du kaat hmm. parce boo dee xool Modap dëgg dëgg dëgg boo dee quatre députés yooyu defe naa ne day nekk benn suppléant benn benn professionnel ah. Mhm. Hmm. kon deux députés la. waaw bu dee MODAP quatre-vingt-dix-huit personnes yëpp maanaam quatre-vingt-dix pour cent ca ñay ànd wala quatre-vingt-dix-neuf virgule sax ñëpp ay góor lañ. Hmm. kon da ngay jàpp ne MODAP benn pa benn benn benn benn benn benn député rek la ñu am bu góor. ak ban position la ñuy nekk. yaa ngi dégg léegi nag kon do MODAP dafa mérité woon nga jox leen lu ëpp cinq députés sax ba pare mu bañ a cinq députés titulaires ak suppléants. ba pare nag bañ leen tënk ci parité bi su ko defee ñu ah, mën a jox ñaari jigéen parité bi il faut ñu respecté ma daal mën a respecté bu ñu demee ci sees loolu man loolu laa doon wax parce que moo daal tey dafa ñoo xamante ne bu dee ministre ñoom ñi ñu koo doon ndax ñu ay arabisant fa ëpp bu dee DG mënuñu doon ndax arabisant fa ëpp député gi ñu mën a doon mhm. bu ñu ci yemaleeg ñëpp rey nañ ñu da nga bëgg daan yéen quota ngeen pële quota war a beral loxo moom waxuma en nom de Cheikh Bara mais en nom de Modap. da ngeen jàkk dañu ñoo war a beral loxo yokk député yi bu ko defee ñu am 5 député ba 6 yoo xam ne ci daara ji lañ jóge dugg ci assemblée bi parce que ñun ministère yi xëccewuñ ko ñoom xëccewuñoo ak ñoom direction yi xëccewuñoo ak ñoom dara mais député bu ñëwee tamit dañ cee war a gis suñu bopp. internet yi nee nañ Cheikh Bara dañ laa bëgg a gis ca assemblée ba internet yi la ñu bind di nuyu les euh, ñu ngi nuyu les 23000 internet yi nga xam ne vraiment instant ils sont 24000 ah. à être connectés di les remercier te nee nañu Cheikh Bara dañ laa bëgg a gis ah, ma sañoon man hmm. ma sañoon man Pastef dama leen di digal dara. Hmm. mooy ñu bàyyi Ousmane Sonko mu tànn Ousmane Sonko la xam na politique mooy am homme politique bi ëpp lum lu mu battre campagne. mille 2017 2019 2022 deux encore 2024. dégg nga juróomi yoon wër na ko Sénégal dund na ko élection am na ci cap expérience boo xam ne ñun ñëpp amuñu ko gars yëpp amuñu ko ci. ba pare ñun Sénégal tànnal nañ suñ bopp Senghor baaxut mu tànnal Abdoulaye Wade baaxut ñu tànn Abdou Diouf baaxut ñu tànn Macky Sall baaxut mu ñëw tànnal ñu Jomaay affaire bi baaxagul na kon nag war nañoo xam ne nañ ko wóolu ko mën a tànnal président war naa mën a donc man bu ma sañoon xëccoo beeg yëpp dañ koy bàyyi bàyyee ko ca gël gu mu tànn man nag li ma ko mën a xelal en tant que moom Sonko mooy ku mel ne ay nga Demba Touré ku mel ne ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay poste DG te am envergure nationale ku mel ne El Malick Ndiaye tey nga jël ko yóbbu ko Linguère mu postulé wu te nga wutal ko suppléant bu baax. mu dem postulé wu nekk kandidaa bi. Mhm. su ñu demee ba pare mu bàyyi li mu bàyyi fa poste bi. jox ko suppléant dellu waat ca lam suñ ko defut nag moom ñoo mën a gagné député ci seen département pour bi dafa am ñoo xam ne amaguñ ko. waaw porte bi image bi aussi ça compte. voilà mhm. bu dee fu mel ne Thiès sax moom Birame Souleye ma nga fa ku mel ne Amadou Ba Pastef moom mën naa nekk suñu tête de kooku c'est mhm. mais fu mel ne ay daara ay yenn dëkk yi ay Louga ay yu mel noonu nañ tànn ki nga xam ne même bu nekkee dafa nekk ministre wala mu nekk DG nañ ko yóbbu même ngañ Demba Touré ñoom waaw Louga sëñ Abdoulahad liggéey liggéey am solo nañ ko hmm. defaree noo xam ne ak Cheikh Cheikh Diop sénateur Diomaye président la bokk El Hadj Cheikh Diop même euh, ñoom defaree liste bi noo xamante ne lii li nga xam ne nag man jàpp naa ne moom laay waxaat Pastef mooy bu fekkee nit ki moom danga koo dóor yàq mu daanu nga am possibilité dóoraat booy dóor bul dóor ndànk mu far jeex benn yoon parce que nag coow li yëpp bu ñu demee législatif gars yi jaar fañ jaaroon def lawoon fawoon nawoon coow li dootu bëri senegal mooy bàcc yu leer bàcc yu leer yi nag li koy def mooy génn wate ci loolu nag man damay jaar ci euh, maanaam sama kàddu gii di lancer appel bitim réew jaar naa fa déglu naa leen euh, xam naa ne lu ma wax danañ ko dégg dama leen di ñaan ni ngeen defewoon ci législatif euh, présidentielle bii jàll ak lu mu leen mën a coûter dem leen ngeen wote. da nga fa doon campagne non dama doon dem rek man fu ma dem. man nag bokkuma ak bugaan ñoom damaa bari bay gis na non man bokkuma ak bugaan hmm. <laughs> léegi bi may dugg fii ci ah, wàllu fajar def naa 10 minutes parce que ku ma seen ñëw taxaw bokkuma ak gars yi de <laughs> man na am bay de waaw man bu ma demee France fu ma mën a dem. Hmm. man samay bagages yi boppam fa yóbbu mais nit ñi ñooy ñëw. macha nañ dem daje ci saal. ñu def ci saal ba def lii. macha allah dégg nga. loolu la loolu laa fa doon wut mais nag man fu ma dem. waa Pastef fekk ma fa. Mm-hmm. noonu la demee. gis na candidat à la candidature euh, sànq maa ngi lay wax ci ay list euh, ndax da ngaa candidaté déjà pour pour nekk député parce que bëgg nañu xam réellement est-ce que Cheikh Bara bëgg na ko wala déet parce que bu léegi yaa ngi koy. waaw xam nga nag mënumaa toog fii léegi li ma ci wax wax naa bu yàgg. mais jamono bi mënumaa toog di tere ne bu kenn wax bëgg naa bu kenn wax bëgguma ba pare naan bëgguma moment bii ñu toll man li ma gis mooy moomaa déglu Sonko la déglu Sonko lu mu dogal ñu ànd ci dox ko campagne ko affaire bi sotti man loolu man loolu laay woote mais woote wu ma ci ndax bëgg naa wala diw bëggut wala diw bëgg na bu kenn bëgg bu kenn bañ mhm. ku Sonko bëggal bëggal ko Sonko bëggalut xamal ne Sonko ko bëggut mu jeex mhm. liy xew sonalu leen gis ay candidat la candidature yoo xam ne xarit si laa dañ koy gën a sax di ko publier sur les réseaux sociaux yooyu noonu par rapport ak mbir yi gis nañu keroog député Amadou Ba bi nekk Thiès mu ci bind di appeler un peu euh, gën a euh, dal mais aussi ñuy nëbb sax yenn mbir yooyu est-ce que du leen xaw a sonal politiquement waaw no parti Pastef nag daa parti bi day parti bu rëy mhm. wax dëgg yàlla day parti bu rëy bëri ñu siiw bëri ñu war a mën a nekk député bëri ñu am mérite donc moom yaakaar naa ne Pastef dong dong dong dong moo mën a def lii mooy ba toll fii dégg goo saagante dégg koo xeex dégg goo dara. ñu ngi koy mhm. def ci démocratiquement. parce que politique nag ku ci nekk am nga droit maanaam am bëgg-bëgg. voilà bëgg bëgg-bëgg moom euh, loolu moom daa bokk ci àdduna daal. waaw mhm. Baye Niass day wax ne néew na nit bëgg dara te sonn ca te yàlla mayu ko ko. d'accord waaye nit néew na lu nit bëggut sonn ca ba noppi yàlla di ko may. Mhm. dafa ñoo xam ne daa am lu mu rëbëg Cheikh am na ñoo xam ne sànq ñu ngi leen di génne sànq ba léegi ci image yi muy ay coalition yoo xam ne yu ñu gis la euh, yenn yi par rapport ak li ñu ci jot a wax sax selon yow waruñu bëri ay député mais est-ce que assemblée bi pour que mu mën a soppeeku dëgg-dëgg même position bi bu ñu fa bariwul ay député amul ay bopp ay tête yoo xam ne war nañ leen a gis selon yow à l'Assemblée nationale ñoo xam ne au moins débat bi dina jóg même bu dee xëy na duñ fa mën a am njëriñ pour contrer euh, budget yooyu ndax gis nañu ballottage bi mu amee aussi xadisi la mhm. dafa mel ni sax opposition bi jariñuñ dara à l'Assemblée parce que budget yi mi ngi doon jàll yu bari mi ngi doon jàll mais ah, débat bi parce que parce que niveau débat bi dëgg-dëgg amul ay têtes yoo xam ne war nañ dem à l'Assemblée même du côté de l'opposition waaw sóoyate mais nag du ma ko def parce que boo ko defee itam maanaam daal di dugg ci li may wax mooy diw daa war a nekk député diw wërta nekk député kooko tamit da ngay sonal leader yi te man ni ma gisee affaire bi nii xëccoo bi lenn rek moo ko mën a moo mën a may mooy ñu tas lépp jox Sonko mu dagal mu dogal mhm. nit ñi ñoo may demal ñii ñooy nekk suppléants yi a ca bokk lii la su génnee ñu ànd ci mais su dul soo ma ko posé woon beneen jour bu dul tey moom wax la ñi nga xam ne nag waaw non opposition bi nag am na ñoo xam ne am nañ mérite ci dem assemblée nationale comprendre pour débat bi jóg voilà am nañ koy parce que pour débat bi jóg non il faut moo am ay ay ay opposant loolu mënut a ñàkk parce que plus fort ni ñuy séddalee plus fort reste am. dégg nga même boo amoon bu ñu amoon bu ñu amoon maanaam boo amoon 1000 voix yow yi yow mi yow mi am 1000 voix raw ci plus fort reste yi kay yow yaay da ngay dem il faut mu am ñu dugg mais daal en tout cas opposition moom am fa du ko yàq mais nag li wóor te daal mooy ñun dañoo jëm ci loo xam ne dañuy defar Sénégal. dañoo war a wate ay loi yoo xam ne loi yi du arranger ñun ñu koy wate sax du arranger opposition du arranger pouvoir du arranger kenn kenn rek moo ci bénéficié wu muy Sénégal ak ay moomeelam loolu nag boo ci jëmee majorité confortable mooy doy. mooy doy Sonko newoon na waruñu koo jox man bi ñuy doog a gagné. man dama Sonko newoon na waruñu koo jox pouvoir Cheikh Bara non xam nga Sonko la mu wax. 2022 lu changé ci diggante bi. waaw li changé dafa bari xam nga maanaam fii nii. waxtu wi ñuy ndékki boo demoon ba xaaju guddi maanaam fii ne ma ñëw sa kër rek nga tegal ma kaasub café ak daggitu beurre ak daggitu kaasu meew damay ree ak daggu ka ak mburu damay reetaan parce que du heure mhm. nguur gi fi nekkoon jox leen majorité mooy nga ren ni nga Sénégal mas xottu majorité wi ñu yoroon ak us néew lu ñu ci def fomm nañ ci élection def nañ ci lu ne amnistie amnistie nañ ci ay tooñkat def ci lu leen neex tas ci kër yi def ci lu leen neex ci Khalifa Sall ñi nga xam ne nii dañoo tooñoon Sénégal waruñoo bokk nga amnistie leen wate ci loi def lu la neex ñooñu kay Ousmane Sonko dafa war a war ne ñii kenn du leen jox majorité mais ñoo xam ne nii siraatal mustaxim lañ nekk nga wat maanaam ñun daal li ñuy def mi ngi mel nañ nga jënd ak fetal gu baax jox xadisi la mii ba noppi ne ko léegi du ma la jox bal yi kon bëggoo bu tiiree jam nit boo ko joxee fetal da nga koy wutali bal jox ko bu tiiree mën a jam jomaay nag xeex nañ ba mu yor fetal gi 60 165 députés yii mooy bal yi nañ ko ko jox yépp muy tiiree di jam d' accord alors ah ci ci di jàmm boobu gis nañ ñoo xamante ne euh, bokkoon nañu ci ñu xeex pour projet bi daal di taxaw mais dañoo gis ci élection législative yi dañoo génn bar ber seen camp euh, bopp euh, dem bay lever sax ay cagnotte mun naa ci wax ni kii di Pape Abdoulaye Touré ak kii di Karim Xurum xàq ci Karim Xurum xàq bi sax gis nañ ñu dafa am temps yi dafa mel ni diggante maak njabootu Sonko bi neexawul bu baax baax sur la toile. waaw xam nga nag man wax dëgg yàlla yooyu ñooñu aw ma aw ma jotuk sax toog naag di wax ci yooyu. waaw ah, jamono yi bëgg daal lañu toll comme neex bëgg waaye nag nit daal xam maanaam dee eh, dee fuñ lay suul daal mooy noppal say bopp waaw dégg nga wala ñu ne daagu fañ la nobe mais yow boo mënta nekk député maanaam mënoo dajale sax 15 eh, millions yooyu demee eh, yooyu yooyu yóbbu caisse de dépôt. vraiment nag nga taxaw naan ay député laa damay lii damay laal kooku damaa yaakaar ne. mais ils sont dans le droit aussi bëgg a bokk ci waaw amuñ am nañ peut-être droit. Mhm. waaye sénégalais yi am nañ droit ci toog di leen xool rek ba xam. Mhm. parce nag dee fu dee fuñ lay suul mooy sonal mooy noppal say bokk. d'accord waaw alors arrestation yi aussi Lat Diop jàpp deg nañ ko loxo